ki ci gën a ndaw ba ki ci gën a mag voilà. d'accord alors Adama euh, wax na ko par rapport ak parrainage bi euh, Aminata Touré en public wax na ne wis nañu benn am nañu matal nañu ba wis benn est-ce que wis boobu xel mun na ko nangu te lan moo waral doxalin boobu mu leer leen ni ne. mbir mi dëppoowul ak yoon loi waxu ko ngeen daf ko malgré tout. <laughs> xam nga xam nga sànq ba léegi malgré. Mm-hmm. Eh, na ma na ma ni may seetaan jéggal parce que soo déggee ñuy wax c'est comme si notre list officiellement dafa war a dem élection wala la liste de Yewwi Askan bi officiellement dafa war a dem élection mm-hmm. caat bi xamul élection na dem jàngiwaat caat bi ñu tagg mais quand même yéen leen déedéet ay dañuy waxtaan c'est-à-dire débat bi dañ koy cadré mm-hmm. ñu dem ci première question bi vidé ko dem ci yeneen. d'accord par rapport aux décisions du conseil constitutionnel balaa ñuy jaxase xelu sénégalais yi <coughs> parce que aussi dans un débat dañ koy organiser ñu xam li ñuy taxawee pour éviter de faire des digressions def fourre-tout dans ce que mm-hmm. moo tax il faut que ñu apporter correction ci lu bari ci li ñu wax. allez-y sur la question de la du parrainage. Mm-hmm. ñi boole ji diñ demoon boole ñu ñun. cour conseil constitutionnel nee na seen recours ñoom c' est mhm. kenn doo ci di loolu kenn dootu ci discuter. non pas kenn dootu li ma li ma toog fii dama toog fii dama toog dama dama toog fii ci sa plateau. parce que sur des questions importantes. Euh. dañ ci toog ñu wax ci ma ne leen ba direction générale des élections valider suñu parrainage. ba mu ko valider dépassé nañ état bu parrainage. ñoom ñu dellusiwaat on revient sur les étapes du parrainage conseil constitutionnel bi nga xam ne moom la mbaxam ne doonee benn fa la toog ci décision yi mu rendre la ñuy war la ñuy discuter parce que duggaguñu si l' affaire des des des des parrainages ak recours non non boobu mi ngi doog a dugg recours boobu mu ngi doog a dugg mm-hmm. donc bu ñu bu ñu parax paraxee les décision dañ def ordre bi mm-hmm. parce que la décision nepp jotagul est-ce que tu comprends puisque retour baa ngi recours boobu mi ngi doog a dugg ñu ngi ñuy a boolewaat conseil constitutionnel non a boolewaat sur le manque de parité sur le non respect sax de l'agencement parce que les moo ont leur sens mm-hmm. ñu ngi ñuy doog a boolewaat ñun Benno Bokk Yaakaar donc conseil constitutionnel jusqu'à présent mooy présision bi mu def mm-hmm. waxul ni liste Benno Bokk Yaakaar day dem élection waxul ni liste département de Dakar dafa valide. baax na wala baaxul. waaw wax dugg ci. dafa ne li ngeen ñëw andi fii ci parrainage ci coowu parenage loolu c'est irrecevable mooy maanaam maintenant mën nañ càmbar dans le fond la liste de la coalition Benno Bokk Yaakaar mooy direction générale des élections mën na ko càmbar léegi décision n'est-ce pas décision conseil constitutionnel sur le Yewwi Askan bi dañoo ñëw boole direction générale des élections parce que ñoom dañ ne dañoo ñëw ne dañuy dafa am ñaari nit yu désister yu démissionné ci seen liste ñëw boo ñu ñëw waroon koo soppi ñu tere leen ko parce que dafa amoon vide juridique direction générale des élections su jël ay décision c'est en fonction du code électoral lay jëlee décision du génn code bi wul du jël benn engagement du ci jël engagement mhm. maintenant dañuy dem fi nga xam ne daw ne benn ñu jël fa ñu wax fa décision jël ko fa d'accord ci décision boobu ñu fa jël code bi fi conseil constitutionnel basé wu. daf ko basé wu ci parce que ne dafa ne woon code électoral bi. amoon na article bu ñuy wax L 173. bu joxoon autorisation su désistement amee ñu remplacer leen. puisque article boobu dafa jóge ci code ci code électoral bi vide juridique la mu permettre ko léegi parce que lu figuré wul ci loi bi rek war nañ ko mën a joxe autorisation. ñu jox autorisation Yewwi Askan bi mu retirer. souscriraat ñeneen maintenant nee naa la loolu mooy décision bi waxul list bi valable na waxul liste bi valableul donc ñoom dañuy retirer dugalaat ñeneen def nañ ko ñoom def nañ ko maintenant def nañ ko est-ce que niñ ko defee baax na direction générale des élections moo koy définir mooy tranché mooy tranché hmm. parce que code électoral moo ko organisé code électoral moo organisé loolu parce que ñoom ba ñuy boole ji ci conseil constitutionnel dañu citer ñaari article article cent soixante L cent soixante seize alinéa six et article L cent soixante dix neuf buy wax ci mbirum inéligibilité n'est-ce pas puisque ñoom loolu la ñu interroger suñ demee direction générale dina ko dina xool ndax ñoom li ñu dugalee baax na wala baaxul donc décision boobu ñoom direction générale la concerné ñun nag aw la yéwén suñu cadré waat débat bi li taxoon ñu boole ñu bokkuti parce que ñun suñu liste fi mu ne nii mun nañ ko càmbar donc l' de deux personnes ndax mënuñu defar list ak ñàkk defar liste xam nga yooyu moom <laughs> sama gars yi dañoo baax rek quoi euh, <laughs> xam nga c' pas l' de ce débat là. Mm-hmm. parce que ku xam élection da ngay xam ni processus la puisque caat bi moo mujjee ñëw at mi na donc dañoo waroon xam processus bi donc dañu war a jàngi code électoral xam processus bi nu muy demee présentement. list bu valable ak bu valable ci la ñu toll nii mais caat bi bu xamuloon Adama caat bi bu xamuloon processus euh, mbiru mbiru élection bi. waaw que est-ce que dina dina dina. admis d'office aussi. non non xam ña xam mbiru élection. du ci ñoom rek tenir compte du code électoral non non mën nañ defar liste nangam. mais il faut nga xam processus bi nu muy demee. Mm. ba su décision amee jógee conseil constitutionnel am na ci yenn débat wax na ko il prend acte. maintenant dama koy accepter loolu mais dañuy xam processus fu muy toll. Mm. yàgg naa la jox naa toog fii sa débat ne liste bu ci nit yëg rek c'est parce que seen parti ñoo ko ñoo ko ñoo ko ñoo ko ñoo ko ñoo ko ñoo ko génne parce que list kenn waru koo génne direction générale moo war a affiché ba parrainage bi jeexee huit liste lañ ne seen parrainage baax na mais waxuñu huit liste lañ ne dañuy dem élection la précision elle est importante donc huit liste yu seen parrainage baax ñooñu dañuy saytu seen liste ñeneen ñi seen parrainage baaxul dañoo dem boole ji conseil constitutionnel ñu ne leen léegi li ngeen fi andi c'est irrecevable donc ñoon yéen kenn warul mun a xool seen i liste juróom-ñetti liste yooyu seen parrainage baax ñooñu dañ leen di saytu mën nañ dem ba ci biir ci biir liste yooyu ñuy saytu juróom-ñett mu am ay manquement am ay irrégularité yoo xamante ni du erreur matérielle mm-hmm. su boobaa décision la direction général di jël jël ci décision maintenant su boobaa dangay ngay defi recours nag au niveau du conseil constitutionnel donc on peut se retrouver finish parce que nee naa la liste Benno Bokk Yaakaar mën nañ dem ba ci jur ñu ñu dàq ko lu dëgg parce que mën na am ay irrégularités yoo xamante ni loi moo tax ñu naan dañuy invalider la liste puisque tollaguñu foofu ci ci ci ci ci décision yi dañuy wax rek ci décision yi nga conseil constitutionnel parce que il faut il faut ñuy bëggee dugg ci bon foofu foofu débat bi il ñu génn sur la décision du conseil constitutionnel parce que décision bi mu ciy dafa leer nañ nañ nañ nekk guñu ci euh, ñoom ni koy waxee ay baara yu góog ay nangam sangam parce que amul benn liste. parce que amul lu tey seen xel. xam nga no dañuy politique. Mhm. ñoom dañuy politique. ils veulent être la politique non dama ne ñoom dañuy politique ils veulent être c'est-à-dire ku gis ku gis ñaari coalition yi ni ñu taxawee. Mhm. ku gis ñaari coalition yi ni ñu taxawee xam ni lépp surtout le président Macky Sall n'est pas dans ces choses di combiner ak di nangam ko gis ñaari tax coalition yi ni ñuy ni ñuy dëmmante nga xam ne duñ def ay compromis ak ay compromission d'accord li fi am mooy décision wàcc na nañ ko accepter bàyyi leen ñu dem parce que mun nañ dem ba ci biir yeneen manquement am su yeneen manquement amee xanaa beneen coow mooy jibaat parce que nag dama lay wax de coow dina jib sur la liste du département Dakar de Yewwi Askan Wi xamu tax nit ñu boolee la recours bi ñu bind par ba ñuy boole direction générale de recours bi ñu bind moo tax ñu nar a am problème lu nekk ci recours bi très bien rapidement rapidement rek ñu waxtaan rapidement ci ci recours sama doom bi moom parce que parce que recours bi recours bi dafa leer dañ ne considérant numéro une considérant numéro un Déthié Fall dafa ñëw dafa agissant en qualité de mandataire de la coalition saisir la le conseil constitutionnel d'annuler la décision décision bi nga xam ni moom la direction générale des élections jëloon pour arrêter processus bi jëlul kii bi mu annuler ko nest pas mu ne considérant numéro deux bi moo ci am importance oui mu ne lu tax moom mu ñëw mu ne s'est présenté pour effectuer des modifications légales sur les dossiers de candidature conformément à l'article L 176 alinéa 6 du code électoral et de remplacement pour cause d'inéligibilité conforme conformément à l'article L 179 mmh. du code électoral que l'accès de la commission ñu tere ko ko n'est-ce pas nee na moom moom Déthié Fall coalition Yewwi li ñu wax ba ñuy boole ji dafa leer dañ leen tere accès parce que dafa dañu am ñaari candidats yoo xam dañoo démissionnaire candidats yooyu démissionnaire ils sont inéligibles article cent L cent soixante moo wax article euh, su su candidat bi inéligible xam nañ na naka lañ koy soppee. d'accord maintenant ci dossier bi ñu dugal ñoom. Mhm. te presse bi parce que aussi ñoom ñooy jaay seen bopp ko quoi qu'on puisse dire ñoom ñooy jaay seen bopp. Mhm. nu ñu jaaye seen bopp mooy dossier bi ñu dugal. jigéen ak góor lañu teg la ñu remplacé or ñi nga xam ni dañoo désister puisque ñoo njëkkoon jaay seen bopp ñaari góor ñaari góor la te nag article L sur des personnes qui sont inéligibles s'ils sont de sexe masculin sexe masculin moo leen di remplacer s'ils sont de sexe féminin sexe féminin moo leen di remplacer donc ils sont peut mm-hmm. foofu suñ demee direction générale des élections dina rëq seen digg donc coow dina jibaat d'accord euh, Pa Assane en phase avec lui Non, non je ne peux pas être en phase. Mm -hmm. Je ne peux pas être